السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان فرض علينا الصوم في شهر رمضان لنيل رضا ورضوان من الله الملك الديان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار المنان واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام العادلين وقدوة العاملين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله واعلموا منة الله عليكم بهذا الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبكي جلدي ginnaaw bi ñu santee yàlla subhanahu wa ta'ala sant ko ci xéewal yim ñu defal bokk ci xéewal yooyu mu defal ñu xéewalu al iman muy gëm yàlla moomu moo ñu defal itam farataal ci ñun ñu woor weeru koor ngir ñu amee ci ngërmandeem waaye tamit ñu amee ci li nga xamante ni mooy aridwan ñu ngi koy sant moom borom bi subhanahu wa taala ci mboolem xéewal yooyu yëpp yi ñu xam ak yi ñu xamul itam ndax yàlla subhanahu wa taala xéewal yi ñu defal bu ñu ko doon lim duñ ko jeexal wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha ñoo ngi seede itam ne amul benn yàlla bu ñu war a jaam jaamu ga di jëriñ ñàkk koo jaamu di jur ak lor kudul allahu subhanahu wa taala ñoo ngi seede itam ne seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la waaye itam ab yonentaam la mooy ki nga xamante ni moo tëj buntug yonent yi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dotti waamee xéewal ci kawam ak waa këram ak ay saxaabaam ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi tege ci njubug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba keroog yàlla subhanahu wa taala di doon suufam sile mbokki jullit yi ginnaaw loolu ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ndax ragal yàlla yàlla moo ñu wax ci alquran nañu nañu ko ragal waaye itam ragal googu na ànd ak wax lu jub buñ ko defee moom yàlla subhanahu wa taala dana baaxal yéwanal suñu ay jëf waaye itam danañu baal suñu ay bàkkaar yàlla moom nee na képp ku ko topp ak yonentaamam bi dana am ëllëg yowm alqiyaam texe bu rëy mbokk jullit yi suñu xutbaak tey dafay wërngal ci benn ci yi nga xam ne mawduu thème bi dafay wax ci loo xamante ni jamono la mooy kayfa nastaqbilu ramadan kayfa nastaqbilu ramadan muy ab laaj koo xamante ni ku ne ci ñun war naa góorgóorlu pour xam tontu wi mooy naka lañu war a gàttandoo li nga xamante ni mooy weeru koor mbokk jullit yi islaam dafa am ay mawaasim ay jamono yoo xam ne saay bu fekkente ni mu ngi ñëw diine ji dafay waajal jullit yi ci naka lañu war a gàttandoo lool nga xamante ni mooy jamono jooju wala xew-xew boobu di ñëw xew-xew yi mbokk yi daf cee bokk ramadan muy weeru koor salafu na saaleh muy suñu mag ñi yàlla yàlla su àndaalaa gërëm leen ñoom de bu jamono ji ñëwaan muy weeru shaabaan nga xamante ni dañ koy wax barab ñoom de dañu doon waajal bu baax li nga xamante ni mooy weeru koor ndax xam gi ñu xam màggaay ak teddaange ak itam yiw yi nga xamante ni moo nekk ci weer woowule ñoom day daan nañu def ni bu ñu wooraan ba juróom benn weer passé ci koor juróom benn weer yi nga xamante ni moo sësaat ci koor bi dañuy sax di ñaan yàlla subhanahu wa taala naan ko allahumma ballighna ramadan yàlla ñoo ngi lay ñaan nga may ñu ñu fekkee waat weeru koor ndax xam gi ñu xam li ne ci koor waaye xam gi ñu xam weer gi teddaange nga xamante ni moom la ëmb waaye itam ñàkk léegi-léegi wóolu sax seen ay jëf ndax yàlla nangu na ko wala nangu ñu mel ni ñoo xamante ni yàlla ñoom lay melal ci alquran ci aaya ji muy wax naan والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ñi nga xam ne dañuy indi di jëf yàlla subhaanahu wa taala lim leen sant ci ay topp lépp leen yàlla ne nañ ko bàyyi ñu koy bàyyi ànd ak loolu dañuy ànd ak tiitaange ci ndax seen jëf yi ñuy jëf yàlla subhaanahu wa taala mu ngi koy nangu loolu moo tax ñoom dañoo bokkoon dafa bokkoon seen maanaam farlu ak seenu yëg ak seenu waajal gi ñu doon waajal weeru koor dañu doon wax yàlla subhanahu wa taala yàlla nag ñu may ñu fekkee weeru koor mbokk jullit yi loolu moo leen doon yóbbu ci yàlla ne ulaika yusaari'uuna fi lxayraat wa hum laha saabiquun ñoom dañu daan njëkkalante ci yiw yi waaye itam yàlla nee na xaqiqatan ñoom ñooñu nga xamante ñoom ñooy jiitu ci jëf lu baax mbokk jullit yi weeru koor dañ koy waajal waajal ko ci li nga xamante ni moom la chariatul islaamiya jàngale waaye waajal ko itam xam ne yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne ñoo ngi koy jëf faw mu nekk loo xamante ni moom yàlla moo tax ñu koy def waaye itam ñu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla subhanahu wa taala nee na innama yataqabbalu llah min almuttaqin yàlla ñu muy nangul mooy ñi nga xamante ni dañoo am ragal yàlla te mooy ñi nga xam ne laa yuzakkuuna anfusahum du ñu baaxal seen bopp di yëg seen bopp ci jaamu yàlla yi ñuy def waaye bal dañuy nekk ñoo xamante ni dañuy bàyyi xel yàlla subhaanahu wa taala ci li ñuy def ndax yàlla dana leen ko nangul waaw wala déet mbokk jullit yi waajal weeru koor daf ñuy dimbali ci ñu mën a xam ndax li nga xamante ni moom la yàlla subhaanahu wa taala di xaar ci ñun ndax danañ ko mën a matale ndax danañ nekk ñoo xamante ni dañuy nekk mel melokaan yi nga xamante ni moo jaadu ci weeru koor mbokk jullit yi àdduna bii ñu nekk képp koo xamante ni am na fi benn examen muy waajal wala sax benn tournoi wala lu mu mënti doon compétition bu mu mënti doon da koy préparer da koy préparer préparation boo xamante ni da koy dimbali ba bu ñëwee ci li nga xamante ni mooy la jours yi du am problème ci li nga xamante ni mooy def wala jooxe li nga xamante ni loolu la examen boobu di laaj wala loolu la compétition boobu di laaj mbokk jullit yi kon war nañoo laaj suñu bopp kayfa nastaqbilu ramadan naka la di war a gàttandoo li nga xamante ni moom mooy weeru koor mbokk jullit yi bokk na ci li ñuy gàttandoo weeru koor mooy adduaa mooy ñaan ñaan yàlla mu may ni ñu fekkee ko ñaan ko ñaan boo xamante ni dañ ciy dogu ndax yàlla subhanahu wa taala lépp lu jaam bi am ci ñaan bu ko ñaanee moom yàlla mën na ko defal loolu bokk na ci li ñuy waajalee gàttandoo ko weeru koor mooy addu'a ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñu fekkee weeru koor comme ni ko saxaaba yi doon defee salafuna saalix mooy allahumma ballighna ramadan yàlla ñu ngi lay ñaan nga may ñu ñu fekkee weeru koor yàlla ñu yàlla subhanahu taala may ñu fekkee weeru koor kon loolu bokk na ci li ñuy waajalee ak gàttanoo ko li nga xamante ni moom mooy weeru koor na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaleel ci sunnaam mu ne bu ñu gisee bu ñu séentoo weeru koor yu ba gis ko ba mu du daal di dugg si bokk na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan ñaan gile allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalaamati wal islam rabbi wa rabbuka allah ñaan googu mooy ñaan yi nga xamante ni bu ñu gisee weeru koor bi dañu koy dañu koy ñaan loolu kon bokk na ci li ñuy gàttandoo li nga xamante ni mooy weeru koor bi ñaareel bi mbokk yi ci li ñu gàttandoo weeru koor mooy alhamdu wa shukru ala bulughihi mooy sant yàlla subhanahu wa taala ci may gim ñu may ñu fekke waat sax shaaban bay di nekk ñoo xamante dañuy séntu weeru koor ndax ku ne ci ñun bu xoolee dina gis ne am na wala mu xam koo xamante ni at wi jamono ji at wi paase am na koo xamante ni moom ak kooku ñoo ne woon amaana ci benn kër wala amaana ci benn place bu ñuy liggéeyee wala amaana ñoo bokkoon sax jàkk waaye tey yàlla subhanahu taala jëlee na ko fi sant yàlla subhanahu taala ci fekkee gi mu ñuy fekkeloo weer woowu dinañu dimbali ci ñu mën a xam naka lañ ciy duggee buñ ci duggee mën a màng li nga xamante ne moom moo nekk ci ay ci ay yiw yàlla subhanahu taala mu ne wa iz ta'addana rabbuka la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid yàlla mu ne bu ngeen ma sante dama leen di dolli bu ngeen ma sante dama leen di dolli waaye yàlla subhanahu taala mu ne buñ ko weggee te mooy di bañ di sant yàlla subhanahu taala nañu xam ne yàlla mbugalam lu tar la aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu فيا فوزا للمستغفرين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على اليهود الظالمين أبناء القردة والخنازير ألا لعنة الله عليهم أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi ginnaaw sant yàlla subhaanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi yéen ci kayfa nastaqbilu ramadan naka la ñu war a gàttandoo li nga xamante ni mooy weeru koor wi le mbokk yi ginnaaw bi ñu waxee ñaar ci ñu gàttandoo weeru koor muy ñaan ak sant yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci li ñuy gàttandoo weeru koor alfaraxu wal ibtihaaj mooy bëgg ak contentement ci yàlla subhaanahu wa taala lii mu nar a indi muy gan bu tedd gan goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na buy ñëw day àndaale li muy àndaale te buy dem daf fiy bàyyi mbokk jullit yi weeru koor buy ñëw dañ ko war a gàttanu ak mbégte dañ ko war a gàttanu ak mbégte ak contentement yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ci xadis boo xamante ni sayna abi hurayra radiallahu anhu moom moo ko wax mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na bokk na ci li mu leen doon bégloo di leen bégalee loolu naan leen weer wu màgg wu tedd ñëw na dikkal leen weer wu barkeel yàlla farataal na ci yéen ngeen woor ko yàlla day ibbi ci weer woowu aljana yàlla dafay tëj buntu safara yi yàlla dafay jéng shayatin yi am na ci biir weer wi guddi goo xam ne moo gën junni weer ku yàlla xañ yool nga xañ na la lépp loo xamante ni mooy yool ci àdduna mbokk lu amel noonu buy ñëw dañ ko war a gàttanu ak mbégte dañ ko war a gàttanu ak contentement ñeenteelu mbokk yi ci li ñuy gàttandoo weeru koor mooy am dogu ci man lépp luy yiw lu ne ci biir te loolu ñoo ngi koy mën a amee ci tegal suñu bopp benn plan lu ñu tuddee taxtiit planifié ne weer wi danañ ci def nangam ak nangam danañ ci wàccee ñaari kaamil danañ ci fexe ba benn julli taraawiix lu ñu raw ci jàkka ji danañu fexe ba awqaatu alxams waxtu juróom yëpp dañ koy jullee ci jàkka ji danañu fexe ba bés bu nekk danañu saraxe nangam danañu fexe ba jokku ci suñu ay mbokk maanaam loolu ñu tuddee taxtiit muy planifier loolu islam moom mooñ ko sant ndax jullit bi dafa war a nekk koo xamante ni munazzaman ala shu'unihi ku organisé wu ci dundam waaye itam dafa war a nekk koo xam ne xarisan ala waxtihi xër ci waxtoom ndax mbokk yi weeru koor yiw kase la màngu ko day nekk loo xamante ni daf ñu dimbali te loolu li ñu koy may mooy dogu ci ne weer yi ca tàmbalikaay ba insha allahu ba ba muy jeex lu ci ne ci yiw danañ ko danañ ko màngu yàlla subhanahu wa taala mbokk yi te bu ñu dogoo dëggu ci moom yàlla loolu la bëgg yaa ayu alladina amanu taqullaha wa kunu maa maa sadiqin yàlla mu ne nañu ragal yàlla te ñu ànd ak ñi nga xam ñoom ñoo dëgg juróomeelu mbokk yi mooy jéem a jàng balaa weer bee jot li nga xamante ni dañ ko war a xam ci weer wi li ñu war li ñu war a xam ci weeru koor bu ñuy dog lan la ñuy wax bu ñu heure xëdd bu jotee nan lan la ñuy ban heure la ñu war a jàng lépp loo xamante ni maalumaat la lépp loo xamante ni fiq ci wàllu siyaam ñu jàng ko wàllu koor lépp lu ci aju ñu jàng ko ngir ñu xam naka la ñuy demee ci li nga xamante ni moom mooy weeru koor bi bokk na ci ñuy préparé weeru koor mbokk yi mooy dogu balaa muy ñëw génn ci bépp ñaaw téef boo xamante ni yàlla subhaana ko tere waaye ñu tuub itam ci bépp bàkkaar ndax yàlla subhanahu wa taala moom moo ñu sant loolu wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun tuub leen dellu seen boroom yéen ñëpp jullit yi ndax yàlla subhanahu wa taala loolu bu amee mën na caa jaaree daal ñuy dugal aljanna kon tuub balaa weeru koor bee ñëw danañu dimbali ñu mën a woyof ci weeru koor bi ba lépp lu ñu war a mën a def ci wàllu jaamu yàlla dañ koy daal di defi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ci xadis yéen nit ñi day leen tuub seen borom jëm seen borom di ko jéggalu ndax man dinaa tuub ci bés bi lu tolloog cent fois muy téeméer yoon mbokk jullit yi bokk na ci li ñuy waajalee weeru koor mooy nga am préparation wu am plan wu ci weeru koor bi dinaa ci dogal ay nit ci weeru koor bi damay siwale ay nit ne kii bés bi maa koy dogal kii bés bi maa koy jox lu mu ndogoo kii bés bi maa koy jox lu mu ndogoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nee na ci xadis ne képp ku dogal ku woor da nga am yool gu tolloog yool ga muy am moom mi woor moom mi nga dogal te loolu du wàññi ci yoolam dara te loolu du wàññi ci yoolam dara mbokk yi li nga xamante ni moom la ñuy jeexalee mooy li ñuy waajalee weeru koor mooy ñu xër dès maintenant farlu ci di julli ci jàkka yi waaye itam farlu ci def lépp loo xamante ni suñu ay santaane la ñu nekk duñu teg suñu gàll suñu loos la waaye tamit farlu ci lépp loo xamante ni ay nawaafil la muy ay naafi la ñu war a def loolu buñ ko tàmbalee nii bu koor gi ñëwee dana yomb ci ñun fu ñu daal di nekk ñoo xamante ni dañuy jokk wala matale li nga xamante ni mooy yiw yi nekk ci weeru koor bi yëpp ñu mën koo màng ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا نتوب إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهمنا رشدنا واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بلغنا الرمضان اللهم بلغنا الرمضان اللهم بلغنا الرمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان انصرهم في فلسطين والسودان اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا كلهم مؤيدا ونصيرا واحفظهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله